jumaay Touba te daayira muqaddamatul xidma bi nekk ci jumaay Touba di ko gérer ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. dellu siwaat nañu ak yéen ci seen jataay yu am solo yi nga xam ne danañ koy faral di ànd ak yéen bii nag bokk ci jotaay yi nga xam ne danañ koy faral di ànd ak yéen weer wu dee ñu koy wax yow la nag di émission boo xam ne dañ ci xamle. jaar-jaar ak liggéeyu ñi nga xam ne seen loxo dafa takk ci jumaay Tuuba ñu liggéey ci moo xam ñu doon liggéey tabaxub jumaa ji la wala ñi nga xam ne bi mu noppee dañ ci doon liggéey ci wàllu taxawal julli yi wala organise jumaa ji imaam yi noddukat yi waa daaray kaamil yi ba ñi nga xamante ni sax dañoo taxaw ci setu jumaa ji suñu jotaayu tey nag ñu fas yéene cee dalal koo xam ne bu ñu ko tuddee rek ku xam jumaay Tuuba da nga ne euh, jaadu na muy Serigne Afia Bousso al imam Serigne Afia Bousso al imam moom lañ fas yéenee dalal tey ci suñu émission bi ñuy wax yow la kan muy koo xam ne nag ci kanam tuuti danañ xam lu tax ñu war koo dalal ci émission yow la ngir xamle ko ab liggéeyam ci jumaay Tuuba ngir njëkkanteeg waxtu wi duñ def lu dul rek jox ko mu nuyoo ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi kon sëriñ Afia ñu ngi lay nuyu di la jox nga nuyoo asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi ajmain waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu ngi wax mboolem ñu ñi nga xam ni ñuy saraawa ñu dégg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ok jërëjëf sëñ Afia ci nuyoo bu am solo boobu nga xam ne def nga ko xam naa dañuy daal di tàbbi ci waxtaan wi rek waaye balañ cee tàbbi dañ leen xamleel kii ñu bëgg a dalal mooy kan sëriñ Afia Bousso la tudd ñu duppee ko maamam moom sëriñ Maxtar Bousso Fati kan ni mooy way juróom wu góor. sëriñ Maxtar Bousso doomi sëriñ Afiya Bousso la ñu bokk ak soxna Awa Bousso mi mooy juru sëriñ Falilu lépp di doom yi itam nag sëriñ Bousso bi Bousso kon sëriñ Afiya Bousso moomu moom la ñuy dalal tey ci waxtaan wi sëriñ Afiya nag euh, laaj bi nga xam ne moom lañ la fas yéene njëkk laaj mooy tey buñ doon wax sëriñ Afiya wax nañ cosaanam fi mu bokk waaye loolu dëgg-dëgg taxu ñoo jóg sëriñ Afiya Bousso ni doomi soxla yëpp di def def na ko jàngum jàngum alxuraan buñ doon wax suñu afiya ci kan moo ko jàngal alxuraan ak kan moo joxe ndigalul mu jàngal ko alxuraan ku ñuy wax suñu afiya man bi dal jàng la ma sama waajur rahmatullahi alayhi yóbbu ci Cheikh Ahmadul Fadal mu ma sama moom lañ baasin ñóbbu ci kër Baay Sëñ Basiru sàmm boobu moo fay jàngale ñu jox ma ko xafisahullahu warahu yàlla yàlla na ko ñu jàng ci moom ba sori lool gannaaw bi Cheikh Amadou Fadal jël na fa ma maag sëñ baare yóbbu nu njaareem ñu am fa bu gàtt des waat man mu jëmu yu baat ma kama ñaaw silla boole ma ak ku ñuy wax sëñ Ndaam Faydu Silla foofu laa jàng alquran di wattu ko bi Cheikh Fadal di jóge booba maa ngi bind sama kaamil bu njëkk bi mu ñëwee mu àndaale kaamil boobu bi ko sama waajur gisee wax ne naa bàyyi kaamil bi te beqiwaat naa bindaat ci àlluwa naa beqiwaat dooy bindaat kaamil wala kamil boobu noonu laa ko bàyyee dem bettuwaat door a bindaat kamil kamil boobu bi ma koy indi fekk ne sama waajur boobu jóge na fi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké laa joxoon kamil boobu ndigalul sama waajur alxaaj sëñ bi sa imaam bi ma ko joxee Cheikh Abdoul Ahad mu joxaat ma kayit ne naa ko bindal baneen ma bind beneen mu joxaat ma kayit naa bind beneen ma ko bindee ba tollu xaala xaala adama ku lak kër bàyyi sëñ ma nuyu ko ma ne ma ana sama téere ba ma ne ko maa nga ci man dama indi dama indi ma gis ma indi ko ma ne ma ah bëgguma lii daa sew dama tàmbaliwaat ko daa ma jox borom alaaji Modou Mamoune Niang mu jox ma kayit ba ni jëkk boo xam ni daanaka toll ni baaraam kan bu tijji kon ña wàllu ña nga alquran mën naa wax ni moom foofu laa ci jaar. ok jërëjëf yaakaar naa ne kon leer na ci njàngum alquranam ak euh, loxo yi nga xam ne ñu ko jàngal alquran waaye ñu joxe ndigalul ñu jàngal ko alquran loolu suñu affaire leeral na ko kon laaj biñ ci taftal rek mooy. ginnaaw njàngum alxuraan xam nañ ne jàng xam-xamu diine mën ta ñàkk ci doomi soxna eh, njàngum xam-xamu diine moom moom fan nga ko fan nga ko jàng ñan ñoo la jàngal xam-xamu diine bi nga xamee ne bind naa kaamil bi ma ñibbisee daa commencé di jàngal alxuraan samay rakk ak di bind kaamil tàmbali téere yu njëkk yi ci bàyyi suñu imaam jàng ko fi boo war a risaala dem na ci daal di suñu Habib Mbakke radiallahu anhu foofu nag faraa jànge li ma jàng lépp ba 1976 laa àggal foofu ba ma fa jógee ma amoon ittey génn dem keer boobu moo doon sama itte jànge ma tàggoo Cheikh Abdoul Ahad mu tere ma ko gàllankoor ma ci loolu daal may boole ak sëñ Cheikh moom Modou Badar Diop ci tànn sëñ Habibu radiyallahu anhu ma ànd ak moom dem Daaru fanay xam naa fa ab diir ngir jàppalanteeg moom ci wàllu xam-xam su 1977 la defe naa dafa nekk ba 1979 dama sëñ Saliou jële fa yóbbu ma njurul fekk boobu ay njabootum fi fa nekk doomu si laxat ak doomam mu wax ne dafa bëgg ma jàngal leen ma fa ab diir ñoom itam ki nga xam moo nekkoon doomam mu jox ko simu Moussa Bachir ki doon doon doomu si laxat mu wàcce ko mu wax ma ne nag ñoo ñoo doon ëllëg nga jóg ndax xam naa daara nga yoroon loolu moo doon ëllëg nga jóg dem fa fa gannaaw ñooñu jóge nañ fa nag kon am nga ndigal de siwaat Tuuba nga del siwaat daara ji fekk daara ji moom man boo may jàngale tàmbali woon ndax ñi nga xam ni maa ñoo ñoo bokkoon di jàng ci kër Sëñ Xabibu yàlla dogal na yàlla daf maa dimbali ma mën a dégg lool ma mën a xam lool li Sëñ Xabibu di wax nga xam su mosaa tëral ba noppi maa ngi di toppalaat ci loolu ñuy def léeg-léeg bu ñu xëyee ba ñoo jànge daal ca kër di toppaat ak di fa tëral yaay di téere xam daara ji moom noonu la tàmbalee moom dafa sos rek ci noonu moo dañ jàngal noonu rek ñoo fay jaar di topp ak di fa bokk ay téere mu ni soixante quinze kon booba daara ji tàmbali ilaa yawmina haada <coughs> ok tuwarkal la tuwarkal la yaakaar naa ne mboolem mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan gis nañ ni mu développé njàngum xam-xamu diine mi Euh, euh, loxo yi mu ko jànge ak xeeti xam-xam yi mu jàng yooyu yaakaar naa ne leer nañ waaye suñu affaire laaj laaj bi ciy teg mooy gis nañ ne suñu affaire Bousso imaam la ci jumaay Touba di fi jiite ay waxtu julli imaama googu kañ nga ko nekk kañ kañ lañ la indi ci jumaay Touba ngir nga euh, nekk fi imaam. akbar jumaa ji yàgg naa ci julli waxtu yu juróom man na wax ni 1972 ba léegi ak bi ma nekkee imam ñu ngi ñëwee jumaa ji sensé wut waxtu yëpp lay ñëw muy taw ak lépp ni ma fay ñëw daal comme ni ma ko waxee moo ni ma doon imaam mu sa wuute waaye su mosaa jullit ci bunt wilaaya ma su ma jullee su ma fa daal di dem ba defe naa ci weeru koor ma julli bay génn suñu tëli dablu ma ñu ngi toog fi doon jullee ma dikk mu ne ma suñu saliwu nee na suma ma déggatul na la dégg jaaxle bu bari nag dama ci wax bis boobu kon ci daal ma taksaan tey nag du ma ñëw moom am taksaan ci bis boobu kon ci laa tàmbalee jiite ci jumaa ji muy 1996 ma bi ma ko waxee tam nag ak jaaxle daf ma lool ndax booba ku toll ni man mos a jiite ci jumaa ji bi ma demee si saa di ko waxee daf maa wax ne rek. waaw damaa bëgg mu yokk ci mu dolli ko ci daara mu dolli ko ci daara ji rek moom daara ji benn la maa moon ci jaaxle lool ndax it wax dëgg yàlla waaw mënu woon ko tolli man daal di jiite wax dëgg yàlla yàlla dogal ñu nekk ci moom itam ilaa yamina yaakaar naa ne loolu itam leer na naañ ñi waaye itam bu ñu waxee ne imaam nga ci jumaa ji xëy na am na ñoo fi wut ndax am na ay imaam yoo xam ne ñoo fi njëkkoon a jaar ñenn ñi sax yaakaar naa ne euh, say waay lañu yow yow bi nga fi ñëwee ndax booba waxtu juróom waxtu ne am na ñu ko yor di ko jiite yow bi nga fi ñëwee kan nga fi wuutu. alaaj sëñ ñu ko nekk mu ba 1970 suñu kilif ñëw nekk fi moom itam. ba mu yàgg bi El Hadj Serigne tàmbalee tële suñ daam ñëw suñ daam busu suñ daam demee ba wàccu liggéey suñ bi samat wuutu ko ci loolu ci biir nag nekku suñ Abdou Samat ci la si mu tëdd suñ mu tëdd moo wutu ko ci takkusaan bi ay weer gannaaw bi nag la ma bàyyee ak tusbaar ji ak takkusaan ji ak timis yi mooy itam ba Tubaarkalla kon mbokk yi ñu ngi fàtte ne ñu ngi a ngi topp seen émission yow la kan euh, bi nga xam ne dañ koy amal weer wu jot di ci dalal ñi nga xam ne ñoom ñooy am seen jaar jaar ci jumaay Touba tey nag ñuy dalal Serigne Afia Bousso al imam euh, ci jumaay Touba ngir ay jaar jaaram bëgg waxtaan ak moom ci lenn ci ay taxawaayam ci jumaay Touba waaye Serigne Afia duñ la bàyyeegul laaj bi nga xam ne moom lañ ciy teg euh, mooy waxtu yi ngay jiite ci jumaay Touba. leeral nga ñi nga fi eh, kañ nga fi ñëw leeral nga ñi nga xam ne ñoom nga fi wut waaye yan waxtu nga fi nga nga taxawee ak ndax it sax ndax jullit jullit ajjuma ma bokk bokk na ci waxtu yoo fi yoo fi mas a jiite waxtu yoo mas a jiite ci jumaa bokk na ci. waaw waxtu yu juróom moom lañ ma santoon bi nga xam ne. 2000 bi suñ maam bu soo demee Makka. la ma suñ felu wax naa ko wóotu doon toon lu ma bàyyi xel dañu bàyyi ba suba la ajjuma rek mu ngi seen bu sa nekkoon neel aafe ma xam ne mooy wóotu maamun bu subaa ci ajjuma ci bu demee ca tefis na jàngal sëñ mu taxaa na jàngal sëñ sëñ mu taxaa xot ba bi moom wóotu ko ci loolu ba mu ñëw ba ci jamono yàggu daaw mooy tam bi nga xamee ne suñu maamoon tam am na muy wéri di ci yaramam Cheikh Ahmad Muntaxa joxaat ma ndigal ma wutu ko ci fan yooyu mu wér de kon mooy. Hmm. ok jërëjëf sëñ Afi léegi nag ñu ñëw ci beneen pàcc boo xam ne nag pàcc boo am solo la ndax ku ne sëñ Afi Bousso al imam sëñ Afi Bousso sa xel dana dem ci mbooloo mu mag muy liggéey ci jumaay Tuuba muy daayira mu xaddamatul xidma daayira mu xaddamatul xidma ab taxawaayam ñëpp xam ko muy daayira boo xam ne. mën nañ ne lu mat ñaar fukkat ak juróom ba mu sosoo ak léegi euh, daayira boobu yaakaar naa ne yow yaay njiitul daayira Muxaddamatul Xidma waaye faaw nga wax ni tuuti nag ci daayira Muxaddamatul Xidma lan la sosoo ak yan xalaat moo tax ñu sos ko lan moo taxoon ñu sos ko waaw ak ci ndigal li ku ko joxe woon. waaw daayira Xidma ay xale yu doon jàng ci man ñoo ko xalaat dikk wax ci ak man ndax dañoo gis ne jumaa ji. mag ñi ci nekkoon dañ cee xew néew doole ñu bëggoon sàkk bis boo xam ne dañ fi ñëw di leen dimbale ci barab bi ak setal gi dañoo bëggoon nga nekk njili ci loolu mu rafetlu ko lool d'accord ci ak ñoom ci lañ ko tànnal aw tur muqaddamatul xidma chaar boobu wa taral musla fi yadiyo fii maa ko ci def ànd ngi liggéey Sëriñ Tuubaa maa ko ci def ak bayti bi ba ci baat yooyu ànd ngi liggéey Sëriñ Tuubaa lépp maa ko bind ci carte muy booba mu néew dara lool bi nga xam ne wax nañ ko sëñ bi moom bool ak bay mu tàll na lu bis ajjuma booba ay bare sëgg la ñuy yor boo ajjuma ñëw bale fakk bi ñu ko waxee sëriñ bi wax ko ne loolu moo doon suñu itte jàppal mag ñi ci saral jumaa ji ak ya tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci ajjuma ji booba fa saasa la wax ne ñu ci daal di boole bis si aydi itam loolu moom sëñ bi xalaatu sëñ bi waaye ñun booba ajju bi cëg leen xalaatoon ñu yor ay bale ci noonu buñ xëy yor ay bale ñu yor ay sarbet ñuy fab bu ñu noppee lal tàpp yi taal cuuraay nangam nangam dem kon ki ci njëkk jëng matériel muy Cheikh Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Modou Fadal mooy njëkk a jëng lu toll ci fat naa lim ba waaye ëpp na un bool nag benn waaye yu jël soxla yëpp ci matériel kon moo ko ci njëkk def te dañ commencé nag dem ay matériel mujj ni di participer léegi jënd ab machine indi nju muy law ba dem biti réew ñoo tamit jënd ay machine di yónnee di jënd ay bale di jënd ay sarkar muy gën di yokk rek mooy tam ba suñ doon ni tey ci biir loolu sëñ bi rafetlu woon lool taxawaayu daayira yu ba tax yu baree bari bu ko ci yokk yokk sax pinc bi ba boole woon sax kër bopp nañ ko boolewaa ci li ñuy saytuwaale naka nag morgue bi noppee tam mën nañ ko nañ ko boole nañ ko boole ci li ñuy saytuwaale ndawi koor gi itam ñu ko doon sakku te ko waxee dafa nañ nañ ko ànd ak noonu nañ koy seetuwaale te sàmmonte li ci war a sàmmonteel bàcc noonu ñu fi jógee itam waxtaane ak jógee itam kastaalik jamono saaliw lañ jamono suñu saaliw lañ ko xalaat wax ceeg moom mu am ci xalaat lool ngir xam nga suñu saaliw ko xame mu sos mbir yomb ko te booba waxtaan wolof musta am ci jumaa ji waaye bu ñu waxee ak moom rek mu xaat ci yàgg mu naa waaye yéen sax de moom lu ngeen xaar rek am na leen ci ndax xam ngeen lislaam xam ngeen sëriñ mi sa suri boo xam ni daanaka rek mu ngi ko xees nga xam ne koñ si xaw a daw ndax dafa diis bu njëkkee maa tàmbali di ko njëkk def ngir xam naa si Saliou man ci fulla ak ci fayda ci ne waxtu ñu ko tàmbalee te dëpput ni mu bëgg façage la koy arrêté moom mu bëggoon nag ñi nga xam ñoo ko sombi ñu naan ko bu dee toroxaar goy lépp mu mu njëkkee ko ci noonu da koy faral alhamdu wa shukru mu di ko rafetlu ci loolu ba mu yàgg ma ma waxtaan ceeg ku ñu si ma dugal ci sëñ Afia Ñang sëñ Moustapha ngir xam gu ma xam ne yii sëñ bi moom ñu ngi ci ñoom di ko yokk si Amar Ka si Sam Bousso war a xam sa diine ba sëñ Mountakha Aïdara ba sëñ Fallou Bousso Thierno lii si Sam Bousso Abdourahmane ñooñu ñëpp xaatu sëñ boobu lañ xaar baati sëñ boobu lañ xaar ñu ngi ci ñoom moo tax ñu dugal leen ci ak suñu Cheikh Cheikh Matar Ka waaye yaakaar naa ba ñu ci duggee itam dañ doon tànn ci ñoom yëpp fa alhamdu wa shukru lépp a ngi ci benn rëq-rëq mbaa benn toof toof bañ ko tàmbalee léegi moo tax yàlla amoon ko ci ñu ngi sant yàlla ak ndim loolu ak bàkk sëñ bi ak ndimbalam xam nañ ci la loolu man a amee ndax barab bi bu doy waar la bu naqaree waxtaan la waaye ba léegi ñi nga xam ñoo koy saytu yàlla muy sural ñu ngi ci am rek ay ay ay sant ak ndam waaye amaguñ ci benn torof torof kon ñu ngi ñooñu itam ñu ngi leen di jotal suñu cant ak suñu ziar ak suñu ñaan muy ñoo ñi nga xam ñoom lu saqal liggéey boobu muy liggéey boo am solo tubarkàlla kon yaakaar naa leer na daari muxaddamatul xidma leeral na li mu sosoo eh, suñu affaire leeral na li mu sosoo leeral na itam xalaat yi taxool ñu sos ko ak bi ñu demee ci Serigne Saliou di eh, yam yam kaddu yam ca wax ak mu ca joxe ak taxawaay yi nga xam ne moom la daare bii def waaw eh, waaye du xam naa li ñu dese ci waxtu sax bëriwut waaye faw ñu ñëw tuuti nag ci xam nañ ni suñu affaire yi itam am na yeneen yeneen liggéey yu am solo yoo xam ne dana koy def ba ci gën a fës rek nga xam ne moom lañ ci gën a kii mooy jàngale mi nga xam ne da koy jàngale yor na daara majalis ju mag joo xam ne tey mën nañ ñi ëpp sax ci ndawi dëkk bi wala daayira Muxaddamatul Xidma ci ay loxoom lañ jaar moo leen jàngal euh, lenn ci xam-xamu diine waaw euh, daara jooju itam euh, faaw nga wax ñu ci tuuti daara ji lu mu sosoo ak lu tax nga kii ak ku la ci jox ndigal ak taxawaayu daara ji itam faaw nga leeral ñu hmm, loolu sax laa doon ab jàngalekat laa tur boobu laay wuyoo rek noonu ci ñooñu mu doon jàngandool ñu dikk fa di fa toppaat ba commencé dafa jël ay téere mujj su ma xëyee ba ma mën bala ma mën a jàngi mi di jot ngir mbooloo di fa jàng si la rek ngoon gi danaa jàngale sax daan am na ñoo ma wax daan jàngale six heures naa jàngale gën a toog seen ba sax mu ñu bëgg a jot daara ji di continuer ci loolu ba tey daara ji nag ñu baree bari jaar nañ fa alhamdu wa shukru mën nañu wax ne ay junni jaar nañ fi mu nekk ñi fa bari ñu fay jàngee seen Baay Faal njaaroon xanaa néew na ci dëkk bi ku toll ci juróom fukki jëm nii te jàng xam-xam te jaaru fa suñu borom itam ñu ngi koy sant mais def na fa barke ñu bari ñu fi jaar ñii am nañu ay ñu ngi ci yëngatu ci ba léegi ñii demoon nañ jàngi yàlla dogal def nañ fa ay ndam am ay rijaas yu mag kon ñu ngi sant yàlla ci barkab sëriñ bi. leen ci résultat boobu nga xam ne daara ji mi ngi koy am daara ji nag jàng fi amul benn amul benn sart li may wax gars yi rek ku dikk ni ma daara ji lu sartam man la boo nangu la jàng boo xëyee ñëwal loolu mooy sart mosuma la kenn fees na wala nangam la man daal tool la boo xam ne sëñ Tuba daa ci liggéeyal ndax féete wu mu ko fenn te moom féete fépp te jàng laa man ku ne la nga mën ci liggéeyal sëriñ bi suma ma xëyee daal juróom-ñetti waxtu maa nga fa borsuwaar mu wàcc ña fay jàngale wallahi xamu ci lu mat fukki nit ña fay jàng ne après fukki nit ndax ci fa ndax daa jëkk la ñuy daje jox seen tërë ma waxale ñu dem ma dem li jëm étier rek dafa ñëw du bisu jàng ba ma xàmmee leen moo bëriwul ndax dañ ma ci xam bëriwul xam ngi itam étieru ma man daal waar loo xam ne daal su ma xëyee naa ci nekk bu sama wàcc jotee ma wàcc ndax yéen loolu laa mën a liggéey lislaam loolu laa mën a liggéeyal sëñ bi su xëyee na ca fee maa ngi koy mën incha allah. Hmm. ok jërëjëf euh, xam naa euh, waxtu yi mooy bëgg a jeex xam naa laaj bi ñuy tëjee rek bi ñuy mujjee mooy gis nañ ne euh, bari na ci xalifa yi cheikhul xadim yi nga xam ne ñoo fi nekkoon li ko dale ci cheikh Mouhamadul Fadil ba jaar ci cheikh Abdoul Ahad ba jaar ci cheikh Abdoul Khadir ba ci seer cheikh Salih mi nga xam ne moo fi mujj. Cheikh Mouhamadou Mouta ku ci nekk am nga ab euh, alaaxa moom ab jëflante boo jëflanteeg moom xam ne euh, faw nga wax ñu ci tuuti nag bala bala bala ñoo tëj émission bi nag waaw. Cheikh moom laa njëkk xam bi ma xamee sama baay laa ko xam ndax maa moom a dëkkoon ndax booba ñu dëkk fii ci kër Cheikh si Cheikh Abdourahmane rek boo suñu kër ne ñu di ay tur tànk buy xëyee ci moom la ñuy dem mu jox ku nekk dërëm yam jënde wuro moom ma teel a xam la bi ma teel dal jàng itam moom dalal jàng maam sama lépp Cheikh Amadou Fadal la moom kooku moom waaye bi mu fiy jógee nag fekk na maa ngi bind sama kawal bu njëkk ba tollu wees ndax nal jabala mu bàyyi koo sama kawal bi moom jotu koo gis waaye moom yóbbu woon njaareem moom yóbbu itam mbaakoon ma jàngi kon moom moo doon moo doon sama moo ma dalal jàng moo ma yóbboon njaareem moo itam mbaakol waaye yoon dogal nag mi ci may mi sama kër bu njëkk ba tool ba tax na jawar la fi bàyyi ko yàlla na yàlla yokk leeram tax si barkeem te fayal ko Cheikh Abdoulaye dama ko waxee kon sama kaamil bu njëkk moom laa ko joxoon gannaaw bindal naa ko ñaari kaamil ak kaamil boobu mu bindal ba mu xaaj tam na bëgguma bii daa sew jëflante na moom jëflante yu bari tam moo bëggee jàng itam moom waxoon naa toog bu ma jàng waaw mooy itam moo doon sama kilifa bu fi nekkee ci digalam laa doon wéy moo nekkoon sama lépp ba dama nopp ak gis Cheikh Abdou Khadr moom ku ne xam na ni mu jaxasoo woon ak bokk yëpp ak ni mu jàpp ñëpp waaye man dama jàpp ne am naa ci moom jàppoon na ma nu nu nu nu nu nu noo xam ne sama daraja àggu fa ndax dafa ma daan wax ne mbaa yaa ngi sant yàlla waaw mu ne waaw dëkk bi de si si si borom doo ko ñaan mu nekk dëkku jàng ak jàngale te sa nangu na ko kon bu dul yow di sama bu kon sant sa borom bi la boole ci ñi suñ borom nangoo ñaan daa ma jàppale loolu itam doon ku mu bëgg lool fu ma gisee rek feeñal mbëgg sama kanam ba àllarba ji ko ñu gisee diggante takkusaan ak timis àllarba jooju alxames ajjuma ja julli si wut ca alxames ja la yegg ci la la la bi waxtaan lu yàgg mu nekk li ma ay xese yu bëri bëri ci bis boobu maa ngi moom képp ñoo fa nekk ak seen mënul si njaay ak ñoo xam ne Moustapha Ndiaye ñun ñett mu téye sama loxo bi. fekk dafa dem ba bay ñaan ma jóg téye nii fii mu téye sama loxo di nettali ay xisa ba ni ma toogee nii maa ngi maa ngi lox ndax ni ma toogee daa dafa yàgg tamit mooy nettali yu bëree bëree bëri yoo xam ne gis nañ bi nekkee ci géej gi yu bëri keroog lañ mujj lañ mujj gis ak moom waaw moom itam tawfeex am naa ko ci moom yaakaar naa boo ko gisaatee bi ko gisee boobu ñi fi gisaat bëriwul moom ñu aljan Cheikh Salihu moom waxe nag moom nekkoon ak moom li ma la ko waxee léegi moom ma jële woon daaru faran yóbbu ma njurul ma nekk fa di ko jàngalee moom itam saq na moom lu bari moom itam moom dafa maa jàppoon ngir sama waajur ndax mook sama waajur dina doon benn lu baree bari sama waajur dama daan wax maa la gën a xam sa waay lu baree bari sama waajur dama daan nettali su ma saa gis day mel ni ko gis sama waajur bu wax man day mel ni ko wax sama waajur sama waajur saf ko loolu nga xam ne du ma nekk yu baree baree bari yoo xam ne nga xam daal su ma gisee rek fokk mu ree daal di ne ma lii moom ma la koo net li danga may neexal mbaa mbaa nga bañ cee sat boo mbaa boo ree ma caw la <laughs> moom ni ma jox soow moom yàlla moom itam ne seq nañ ko moom itam yàlla doo dokk leeram moom itam Cheikh Saliou ku baax moom itam koo xam ne fa nekk féete na fa moom itam waaw Makka ak ba itam jamaa ji itam moo moo ñu jox ndigal ñu ko ñaan mu sama ndokk daara moom itam mhm. gannaaw bi ñu fi nekk ñëpp itam loolu rek lañ sax ak moom lañ sax ak moom ku rek ñu ànd ak moom di ci ay moom moo itam moom dafa doon sama jekk moom ku xam ne ni moom mu sa saa ju ma balaa balaa toog ma tooñ moom dafa doon sama waaye loolu moom itam <laughs> waaw ba ci Cheikh am ci lu bari lu xam yéen sama digganteeg moom waaw mun dafa maa bëggal bopp moom itam dooloo ma ci lu baree baree bare loo xam dama daan wax lu ma li seen rek sama xel dal na ci lu ma li seen rek sama xel dal na ci waaw moom itam ñaan su moom yàggal ko fi loolu moom itam ba li bëgg liggéey lépp yu mu def ko te ñu ànd koog moom ñi nga xam ñu nuy dégg ma ñu seetaan rek su leen sant di leen te di wax ni nun ay jaamu yar yoo xam ne suñu borom bind nu li mooy nu jaamu ko kon jaamu yàlla dong moo tax ñu andi fi kon nan góorgóorlu ci jaamu ko ñu am tawféex yi bokk ci xeetu Seydina sallallahu alayhi wasallam am tawféex yi bokk ci njabootu am bii am tawféex yi di ko xeel ci barabam bii muy tefeex yu bari yoo xam la ci war a ci ak cant gi mën nu ko xanaa dem ca ba dee rek fas yéene di ko liggéeyal ba ba ba ba gis encore kon ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di dé sama bopp di ko invité mboolem jullit ñi waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. ok tubarkalla tubarkalla kon jàpp naa ne sëñ Afia waxtaan yi am na solo ñu ci baree bari xamee nañ ci lu baree bari loo xam ne. xëy na xamuñ ko woon bari na ñu la xam sax ñoo xam ne tey li nga leeral euh, xamuñ ko woon kon ñu ngi ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm ci sa taxawaay di ñaan suñu borom subhanahu wa mu gën la fee yàggal euh, ci barke Cheikhul kon mbokk yi lii mooy jotaay bi nga xam ne doon ngeen ko topp tey ci seen émission yow la kan ñu koy faral di amal weer wu ne ngir di ci wane jaar jaar ak euh, taarixu ñi nga xam ne seen liggéey dafa taqaloo ak jumaa ji tey ñu doon dalal sëñ Afiya Bousso al imam mi nga xam ne mooy njiitul daayir muqaddamatul xidma tey imam fii ci julli juróom ci jumaay Tuubaa ji kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox ndaje ci weer wi di ñëw ci geneen gan gu ñu war a dalal ci seen émission yow la kan wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.